problème bi benn fii sax ñii góorgóorlu ne lii leen di sant di leen gërëm yéen a ko liggéey bon ki nga xam ne mooy seen sëriñ di seen yaakaar lu leen ko xamante moom mu defal leen dana leen ko defal dana leen ko defal dana leen ko defal. waaw waaw loolu xaw ma yàq nit ñi danañ ko xeebloo lépp loo bëgg danañ ko def moom bi de waaye nag bàyyi lu doon xool. jërëjëf Baye Dieng noo ko waxee woon nga ne. yoo xam ne nii man xam naa mu wax ma ko démb tey doo ko ñëw ji bu mu daan wax ma ko nangu waaye ba ma demee ba gis li may wax yëpp dëgg dama ko nangu te nangul may ak yàlla ci bokk la ci gën a fi sa bopp bu leen neexee mu xàgg la ko nekk. xale yu ndaw ñoo may wër. dama tuddal yàlla. ñuy nuyu ci biir yàlla yi di génnaat. duñ dee duñ dee. duuru loo xam ne yéen ñi naa yàlla yéen a yegg yéen tudd ngeen yàlla ba yàlla dund na. rey nañ leen ba ngeen dee. xaaral duñ dekkaat leen ci biir yàlla nga xam ne dootu leen dee ba mu